بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينمو الهاء بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضرا كل موضع وفي الأوتاد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم القادر للأمان مبكي جناو بنو سنت يالله سبحانه تبارك وتعالى jullit yi yëpp dem tedd ba sallallahu alayhi wa sallam fi nga xamee ne baaxoon nañ ko nuyoo nga xamee ne moom mooy akademiyatu daarul karim almaxruusa li xifdi turas al wa nasri thaqafatihi kon mbokk yi ñëwaat nañ fii ci beneen thème boo xam ne nii insha allahu rabbi war nañ ko fee jàllale te ki ko war a jàllale suñu mbokk di cheikh ahmadul xadim njaay mii nga xamee ne mi ngi toog Cheikh Ahmadul Xadim Njaay nag yaakaar naa day nekk maarifa ci ñun nga xam ne du nekk nakira ndaxte bu nu xoolee ay jaaruwaayam ci xam-xam rek buñ ko woowee fii mu toog jox ko tem day nekk loo xam ne nii danoo def la war rek euh, ci sira zatiya bu gàttam rek Cheikh Ahmadul Xadim Jaay la tudd jàng fi nga xamee ne foofu la ñuy jaarale wala jaar fi nga xamee ne foofu la ñuy jaarale nit ñu baax ñépp rawatina mboolem koo xam ne ni baaxis nga ci jàng alquran pare waaye tamit ñu bàyyee xel bi tamit ma nga dëkke fi ñuy wax Kër Malik foofu la dëkke moom nii nag jaar na ci ay jaaruwaay yu bare bare bari ci buñ ko tënkee ndax waxtu wi waaye ñu xam ne rekk mbooleem ci biir dëkk bi fi nga xamee ne maanaam ay bërëbi jàngukaay la yu siiw lool daanaka jaar na fa mu mel ni ki loolu rekk doy na ci ñu woo ko fii teg ko ngir mu jàngatal ñu benn tomb waaye day mel ne yemut foofa it ginnaaw bi mu paree tamit li arab nan sadda rixaal ila Mauritania ci la dem ngir yokk xam-xamam foofee li gën a neex nag ci waxtaan wi moom mooy taxasus bi nga xamee ne daanaka dañ ko xaw a bokk ndaxte ci la génne wal i'laam loolu di lu am solo loo xam ne nii lu ñuy neex la lool civilisation moom lu am solo la rawatina civilisation islamique dama dama bi da ko war a xam te dafa am ay anaasir yu bare bare yoo xam ne nii moom la làmbool foofa nag fa la amee foofa ci Mauritanie foofa la amee licence nekk baaxis bu mat sëkk ba nga xamee ne sax bind na ab téere boo xam ne nii almafahim alqatira li daxdi lislaami wa tarkiis alxadaarat algarbiya la ko tuddee moom nag mu nekk ci biir école yeeg classe di jàngale ak di jàng kooku moom moo ñu war a defal waxtaan wu tey wii insha allahu rabbi mbokk yi waxtaan wi nga xam ne moom lañuy def nag waxtaan la wu am solo wu mat a bàyyee xel lool ci sunu jamono yi ndax bu nu xoolee dañuy gis ne mu ngi ñuy waxtaanal ci ahamiyatu tawxiid fi taalimi suufiya al muridiya namuzajan impact bi nga xamee ne tawxiid wéetal sunu borom tabaraka wa taala am na ko ci ngir bu ñuy wax ngiru suufiya tariqa yi bari na wala bari na waaye moom dafa jël taifa bi nga xamee ne ñun tariqal muridiyya ci lañu nekk loolee muy wax impact bi loolu nag muy lu am solo loo xam ne ni lu ñu war a xam la ndaxte day mawduu boo xam ne nii mawduu bu yaatu la boo xam ne nii bu fekkee ne ci min naaxiya lislaam mooy ci cadre lislaam dugguwaayu doomu aadama bi la loolu moom moo tax mu bari ay taarif yu bare bari yoo xam ne nii am na ci ci mboolem taifa yi kenn ku nekk ni koy déggee moom nag mu war ñoo jàngal loolu waaye li ci ëpp solo moom mooy muridiya ñun fi nu bokk sëriñ bi nan la ko gisee loolu mooy li nga xamee ne ay jàngat la yoo xam ne nii insha allahu rabbi moom sëriñ bi dinañu ko defal li nga xam ne nag tey moom lañ bëgg a waxtaane comme ni ko sëñ Xaadim indee macha allah muy yaakaar naa mawdu boo xam ni wala thème boo xam ni bu am solo waaye amag solo lu ñuy taxaw seetlu la ndax sunu boroom wala gaa yi nga xam ne ni moom lay warlu jamono ju nekk comme nekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni jamono ju nekk du deñ di am ay gaa yi yàlla yoo xam ni ci dëgg yoon rek la ñuy jaar te loolu wax yonente la du changé du fausé kon gaa yooyu nga xam ni yonent wax na ni ñoom ci yoon rek la ñuy jaar ñoom buñ demee ba taxaw di jàngat naa nun defar tawxiid yaakaar naa amul solo loola war na koo laaj wala boog ki nga xam ni yàgg naa jàngat wala muy wala muy liiral gaa yi jàngat tasawuf ak tawxiid war naa laaj lan tax ndax ñoom lépp tawxiid la jëmmi tasawuf tawxiid la ki nga xam ne tamit àndul ak ñoom muy école yi bees yi nga xam ne ñoom ñëw ci ginnaaw ànduñu ak ñoom wala boog dañuy am beneen yoon beneen beneen taxaw gisin bu ñuy gis ci ñu bu la beneen bi bi bi suuf gis ñoom it dinañ laaj lan moo tax ñu jàngat tasawuf ak suuf yi ndax ñoom laalu wala tawxiid ak suuf ak euh, tasawuf ndax ñoom laaluñ darañ tasawuf léegi nag ngir tontu ñaar yooyu moo tax waxtaan wi am solo maanaam diggante ñaari gaay yooyu mooy tax waxtaane tasawuf ak tawxiid am solo ñu wax ki nga xam ni mooy ànd ak mag ñi di leen gëstu wala boog muy xeeñu seenu mboor ni ko ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw doo ñu ay suufi waaye rek ay ma mutasawif lan ñun ñoo am aajo ci xam ñoom fi ñu tegoon seen tànk kon ñu jàngat loola dina am solo ci ñun kookeet nga xam ni dañ koo netti di mag ñi wala boog am na lu ko tax mënta àgg ti ñoom ba mu jëriñ ci ñoom ñu xaman ni ko tamit mag ñi fa nekkoon mooy fa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci saxaaba yi ba mu agsi ci ñun ci anam bu leer kon diggante boobu moom la waxtaan wi di tëbb lool ak solo boo ko defee pour ñu jàngat ko nag comme ni ko sëñ bi waxee dinañ ci sukkandiku ci euh, mag ci seen bopp ak maanaam ñoom nin ko nin jàngat tawxiid ak seen madrasa ñoom nin nga xam ne na madrasa tawxiid bu ko defee nag ñoom seen madrasa mooy madrasa bi nga xam ne nii mooy moom la ñuy wax ahlu sunnati wal jamaa ci tawxiid école la comme xeneen mën naa am beneen école wala yeneen école école mën naa amaat mais ñoom seen gisin ci tawxiid bu ko defee tamit seen ngir mi nga xam ne moom lañ nekk di ko woote lan la doon ak tawxiid balaa loolu dinañ xam lan mooy tawxiid ni ki noonu yan maratib la am foofu dañuy bàyyi madrasa beneen bi wax suñu madrasa ñun muy ñun waxuñu aqsaamu tawxiid bu dee maam sufiyaan yi wala ahlu sunnati wal jamaa wala ashariya boobu sifa xaasa waxuñu ñoom aqsaamu tawxid waaye maratibu tawxid am na ci biir jàngaleem gaa yi yàlla yi dinañ ci wax ni ki noonu it ñoom sonn gën sonne woon ci tawxid ginnaaw ba nga xam ne seenu ngir tawxid la waaye ñu jugaat nag tawxid bi nga xam ne mooy tawxid kalaami bu ñëwee ba ci eh, xam-xam bi dina dinañ ko leeral ba nga xam ginnaaw ñoom ñaari kalaam ñaari kalaam yi tawxid al kalaam yi comme ni ko imaam Ghazali di leerale ak tawxid bi nga xam ne mooy seen tawxid bu bu tasawuf bi nag fa la ni jaar wax nag ñi nga xam ne ñoom la suñ bi di teg ci yoon nga xam moom la ñuy xeeñtu moom fan la nekkal ci tawxid jooju ñi dogal ngant nag waxtaan wi ñëpp rek nga xam ni lépp lu ci dégg lu dul bokkul ak loola du lu jublu waaye xañ na kon ñàkk pédagogique bi wala boog euh, ñàkk àlluwal wala yeneen moo ci moo ciy laxasu waaye du jublu rek mooy lépp yéwén incha allah di ñaan suñu borom defal na ci tawfeex ba euh, mu sotti ci anam ko defee kon ñu wax tawxiid mooy lan ci ñoom maanaam ñoom tawxiid mooy lan foofu it dinañ wax ilmu tawxid ak tawxid ilmu tawxid bokkul ak tawxid loola mooy li ci imaam Ghazali di leeral ci Ihya Ulumuddin ci muqaddima ba juróomi baat yi nga xam ni mafhum biñ amoon bi muy sosu dafa soppiku bi mu ñëwee moom ba ci jamonoom kon yaakaar naa suñu jamono ñun day gën a yéemi ma xam jamono imaam Ghazali yi cinquième mu sotti ko ba déggatul mu ba ñu war rawatee kon nag suñu jamono léegi tawxiid soppiku na fiq soppiku na ak batum ilmu waaye tawxiid la wax tey ak euh, soppikoom bu defee kon ña ilmu tawxiid ci loolu la sosoo sosoo bàyyi tawxiid ok mu tawxiid ci noonu la sosoo kon bàyyi mafhumu tawxiid ba nga xam ni moom lan xamoon bu dee ilmu tawxiid pour ñu génn ko. mën na wax ni mooy xam-xam bi gën a màgg ci xam xeeti xam-xam comme ni ko sëriñ bi waxee moom ci boppam wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi ñëpp dëppoo nañ ci ni tawxid mooy xam-xam bi gën waaye bu dee xam-xam xam bi mooy xam bi gën ci xeeti xam-xam kon ndax mooy xam-xam bi nga xam ni moo làmboo li gën ci biir xeeti xeeti xam-xam foofu sëñ bi beneen anam dina taxsimaat jëmmi xam-xami diine yi waaye balaa loolu dina jël taxsim xam-xam yépp boo leen boole yu diine yi ak yu adduna yi imaam daal ni imaam Ghazali yi moo waxee moom laa ci jublu daal ni xam-xam yépp mën xaaj ci ñaari xaaj mm, xam-xam boo xam ni bu adduna la ak bu diine yu adduna yi waxuñu ci tey mooy lu mel ni ay mathématiques ak ay nangam ay médecine ak hëndësa euh, ak xam-xam yi ci aju léegi nag xam-xami diine yi ñoom moo am ay ilmul kalaam tawxid am ay fiqh ay usul fiqh ilmul xadis ilmul tafsir nangam ba xam-xam yi xeet yi nga xam ne dañ koy jàngat ngir suñ diine lislaam moo tax nga war koo jàngat loolu la ñuy tudde xam-xami mooy ñaari xaaj yooyu bu dee xam-xami diine yi ci boppam da koy xaajaat beneen ñaari anam mooy xam-xam kulliya ak xam ne juziya la benn xam-xam ci biir xam-xam diine yi benn xam-xam képp la mooy tawxid xam-xam yi ci des yépp ay ulum juz'iyya lan tawxiid rek mooy jàngat ab kullu ci biir xam-xami diine yi bi maanaam moom mooy jàngat al wujud mooy jàngat al wujud te al wujud kon mooy kullu mooy am ba pare boo jëlee fiqh ay ahkaam lay jàngale ni war a jullee woore nangam boo jëlee tafsir ay alxuraan moo ko ñor ñu ko war a jëfandikoo nangam mustalahul xadis xadis riwaat yi góor yàlla gi fii la kii wóor na wóorul xam-xam boo jël ci ñoom xam-xam yi ulum yëpp day jàngale benn fànn kon ñoom ay xam-xam juz'iyya la xam-xam kulli bi nag mooy tawxiid nga xam ne moom mooy jël al wujud ak am bu jëlee am dañu am ñaari xaaj la foofu it nga diglu xam position imaam al-Ghazali yi ci wahdatul wujud ndax am nañu ko ko tuumaal am nañu masalan bi ñuy wax bi ñuy taarif wala bi ñuy tasnif gaa yi nga xam ne nee na dana woote ak wahdatul wujud tuumaal nañ ko ci imaam waaye yaakaar naa boo digloo fu li muy wax ci muqaddimatul ihya bi di xam li mu jub li lim fi fi mu fi taxawee mu ni ilmu tawxid mooy jël al wujud séddale ko ñaari xaaj daal lii hard la maanaam xadim moo am ci wujud ak xaadis lépp lu am benn da sosu wala nga ñàkk sosu mooy nga jiitu lépp lu nekk ci àdduna walla lu am lu am bi si fa am àdduna ak nangam dangay am da jiitu wala jiitu woo léegi nag bàyyi li nga xam ne daa jiitu waxagu ci wax ci li nga xam ne dafee dafa dafa sosu ni lu sosu tamit ñaar lay doon muy jëw jawhar ak ard jawhar mooy jëmmu jëmmu yoo xam ne mën naa soppi ku yàqu nangam ak ard nag mooy loo xam ni day gaar day gaar ci jëmm jooju nga xam ne mooy jawhar bi nangam kon lépp loo xam ne nii sosu na faaw mu soxla woo ñaar yooyu maanaam ñaar yooyu moo koy moo ciy nekk ak ak jëmm yoo xam ne daa am lu koy gaar nit ku xees nit ku ñuul nangam kon xees ak ñuul day gaar jëmm nit nit moom zaat la jawhar la kon nga mu xaajaat foofu noonu daal jël xard xaaj ko bu ko defee maanaam dañuy leer waaye xam-xam li mu wax mooy fa àgg moom xam-xamul tawxiid bu delluwaasee ci buur bi mooy bu delluwaatee ci danaa moom xadiim moom nunguwul yi nekk ci biir xaadis mooy di xaajaloo nekk fii nekk fee ak benn benn xam-xam la tawxiid di wax moom lay saxal ci xadim wala ba benn sifa la koy jox mooy sifa ak kenn mënta doon ñaar mënta xaajoo mënta xar jëm ni kenn rek lay doon kon tawxid ba léegi yaa ngi ci xam-xam bi li nga xam ne masalan noonu lay noonu lay jàngatee bu ko paasee nag daan ni la kooku kum nu jox dañ ko war a jël mooy bu nu bu nu joxañee daan ni diw maa ko yónni ci yéen mooy mu'jiza ndax kenn ko na xam ne ni mu'jiza bi yonente mooy wane ni suñu borom wàccoon ni diw ni maa ko ci yéen léegi nag tawxiid moo ñu jox daan ni moo gisa bii bu ko kii wanee nan ko nangul fa lay yam kon moom day jàngat ab kullu jox nag xam-xami kenn ku ci nekk jël bu dëggalee ne yonent bi yàlla moo ko yónni ndax moo gisaam rek nga yeneen xam-xam yi soo ko tàmbalee am liggéey mën a jël al maanaam fiqh mën a jël ahkaam yi yonent bi wax euh, tafsir mën a jël aaya yi bi di wax nangam léegi nag xam-xam di kon xam-xam bi gën ni ko sëñ bi saxale mooy xam-xam tawxiid ndax mooy jàngat li gën a yaatu ci biir diine ji hmm? bu ko defee nag euh, xam-xam wala xel ak euh, ilmu tawxid foofu lay yem moo moom mooy xam-xam bi nga xam ni moom mooy ñuy jox pour yeneen xam yi moo moo leen di pour ñu mën a euh, liggéey bu defee nag ñoom ñu jël seen seenu rôle loolu mooy wa afdalul ulumi bil itlaq kon imam Ghazali dafa séddale xam-xam yépp sëñ bi nag séddale moom xam-xam bu tawxiid bi ci boppam biir xam-xamu tawxiid mu jëlaat ko séddale ko ñaari xaaj daan ni al ilmu min gayri irtiyaabi yanqasim li zahirin wa batinin xaysu qusim zahiruhu tawxiidu man takallamu wal fiqhu wal alatu dalika alamu batinuhu tawxiidu gurrin urifu bi rabbihim wa huwa tasawufu arifu fa zahiru lmuslihu lil amali wal batinu ljalibu lil kamali bu dee fii day day day day day séddale xam-xami diina yi xam-xami diine yi moom ci ñaari xaaj la ko gisaat moom sëriñ bi ni ñaari xaaj la am mooy xam-xam boo xam ni bu biti la ak xam-xam bu biir xam-xam bu biti bi mooy xam-xam bi nga xam ni mooy euh, tawxiidu mutakallim bi tawxiidul mutakallim mooy ilmu tawxiid bi ma doon wax léegi ak ay fiqh ay xadis yeneen alaat mooy ay naxwoog arud ak xam luga ya ci aju yooyu ñooy xam-xamu zahir kom comme xasaba sëriñ bi xam-xamu baatin bi nag mooy xam-xam bi nga xam ni mooy tawxiid la ab tawxiid kon sëñ bi foo xoolee tawxiid la ko tudde foofu baatinuhu tawxiidu xurrin urifu mooy tawxiid bi nga xam ni sang yi ci lañ xamee seen borom wala xam sang yi xam seen borom ci lañ jaar ba xam seen borom wala moom lañ sukkandiku ñoom mooy at tasawuf moom la waxaat ci biir masaalik ni wal ilmu wa wa baadu fa tawxiidu lil qismayni munqasimun wa saara tawxidayni awaluhu takallumun wa thani taarufun laa tunkiran bayaani maanaam xam-xam tawxid ñaari xaaj day séddalikoo hmm. xam-xam tawxid boo xam tawxid kalaam yi la tawxid kalaam imaam imaam da ci cee da cee daj ji gaay imaam Xasaali maanaam ndax dañu mutakallimu nay sax ñu ci bari ñoom ñuy wax tawxid li ñuy wax ni mooy tawxid ci bari ci ñoom maanaam néewuñu ca tawxid bu ko defee ñi nga xam ne mooy tawxid takallum bi mooy tawxid bi nga xam ne moom la sëñ bi euh, tënk ci faydul xanil muxni maanaam moom la waxaat ci euh, mawaahibul quddus téere yooy yooyu ñooy yor tawxidul takallum wala tawxidul kalaam mooy ilmul kalaam bi bu ko defee nag tawxid beneen bi nga xam ne ne mooy ilmul baatin bi mu tudde fii tudde ko fële tawxidul irfaan yi wala tawxidul irfaan yi bokk Moustapha Jubal Koki moom moom moo ko tudde tur woowu wala moom moo koy wooyee noonu tawxiidul irfaan yi def ci moom it dira diraasa bu am solo euh, sukkandiku ci moom ay ay ay góor yu am solo génn ci xam-xam ba bu defee man lima ma ciy wax mooy sëriñ bi moom tudde na ko tawxiid taaruf wala ba tawxiid irfaan yi bu bu ci wér bii mu tudde ko tawxiidul kalaam kon xam-xamu tawxiid mooy xam boobu xam bi laay wax ba tey mooy xam-xam bi nga xam ne mooy jàngale al wujud bi sifa amma bayna xaadisihi wa qadimihi wa kadalika alxadis nangam bayna ardihi wa jawharihi ak ni muy gisee alxadim jox nu nag pour ñu man a continuer dem léegi buñ xamee xam-xamu tawxid ni moom dañ ko war a jàng ngir ci ñaari anam yooyu léegi nag lan mooy tawxid lan mooy tawxid tawxid bu nee masala naxwu nga jàng ay fail maful bihi naayib fail ba pare léegi nag yow lan ngay war a jëfandikoo naxu léegi bu la jàngalee tawxiid ba bàyyi la looy def loolu lañ jubla wax ci ak tawxiid ak ilmu tawxiid mu wax ni tawxiid mafhum bi nga xam ne moom lañ ko xamee woon dafa soppi ko complètement ak mafhum bi nga xam ne moom la yor ci ginnaaw bi ndax tawxiid liñ daan ko liñ ko daan wax wala bu ñu bëggee xam ne tawxiid mooy lan euh, mooy nga gis mbir yépp ni yàlla suñu borom rek moo ko dogal nga xam ni mbir moo gis yàlla rek nga ciy gis loolu du ak fànn bu na la daleel baa a déedéet mbir moo gis yàlla nga ciy gis loolu mooy tawxiid mbir moo gis yàlla nga ciy gis gis goo xam ne du laaj gestu nga xam gis goo xam ni du soxlawoo gestu du so doo gestu gis ab sabab doo gestu gis wasiit maanaam lu lay jokkale ci mbir ma mën a am nga naan lii calcul sàngam moo tax mu am wala lii sabab sàngam moo tax mu am déedéet mbir moo xam gis dangay gis suñu borom ci mbir yi gisin moo xam ne du laaj sabab du laaj wasit yiw wu man di doon ay wu man di doon subhanahu wa taala ci la goggi ko bu ko defee nag loolu mu ni martaba la moo xam ni mu kawe la moo xam ne li bokk na ci ay samraam wala meññ ay meññ itam ak tawakkul billahi comme sëñ maanaam minal baax xadim noonu sëñ bi di natte sëñ sëñ Basiiru noonu muy natte sëriñ bi ci biir maqaamay gaay yàlla yi maanaam loolu dirasa bu am bu yéeme la mooy balance yi nga xam ne moom la sufiyanke yi teg moom lay teg di ci teg sëriñ bi bu mu ci teg mu fees ba tuuru zuhud ba tawakkul nangam léegi nag tawakkul ba ba muy wax sëñ Cheikh Mouhamadou Bachir indi na ci junj na ci wax jooju nga xam ne imaam Ghazali jàngale tawxiid ba ba mu agsi noonu nga xam ni euh, bokk na ci wéetal gi ngay gis yàlla dem ba moom doo gisati leneen lu dul moom maam tawakkul bu mat sëkk ci moom bokk na ci tamit ay meññatam mooy dootoo jàmbat benn mbir maanaam bu yàlla boo ci àggee da ngay àgg ci wëkkilu ci yàlla képp kon yéegi boo ko jàngee ba pare wala boo ko jàngul sax newal ci wéetal yàlla képp yaa ngi am tawhid hmm. ni ki noonu it bañ wëkkilu ci kenn ku dul yàlla bañ a jàmbat kenn ku dul yàlla bañ a mer mere kenn ci lu dul yàlla bañ a sopp kenn ci lu dul yàlla ne loolu mooy moom bokk na ci meññet yi nga xam ni moom la tawhid di génne léegi ngir xamal la nag loolu moom la ci moom la gaa yi baax yi nekkoon mu solo ci ni Seydina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu dañ koo wax ci benn feebaram ni ko ndax duñ la wutal ab médecin bu la faj ndax duñ la wutal médecin ne leen médecin bi mooy ki nga xam ne moom a teg jàngoro ji médecin bi mooy ma teg jàngoro loolu mooy mooy tax yi wéetal yàlla maanaam gisul jàngoro ju seen ju passé fenn wala boog jàngoro ju jóge fenn ci kenn waaye médecin bi nga xam ne moo ko war a faj mooy yàlla te moom yàlla moom mooy ki nga xam ne moo ko tegal jàngoro jooju ñu wax keneen ci ñoom gars yi baax ya ni ko mu dem ci docteur ba ñëw ñu ni ko lan la la docteur bi wax mu ni docteur bi de nee na ma inni fa'aalun limaa uriid docteur bi dañu ma man maay def lu ma soob fa'aalun limaa uriid nag kenn dong lay doon muy subhanahu wa taala kon euh, ñoom fi nga xam ni wala boog tawxiid buñ ko bëggee am mooy gis googu ngay gis yàlla ci mbir mu man di doon gisoo wasiit gisatoo benn benn benn kiiraay wala boog benn sabab boo xam ne mooy dox sa diggante mbiri ba nga ba teelaa nga gis ci yàlla wala tax nga fàtte ko ci dara bu defee kon wakiilu gaag jàmbat gaag yépp delluwaat ci borom bi rek bu ko defee nag loola mooy mafhum bi nga xam ni moom lañ ko moom lañ ci moom lañ ko xamee woon mafhum bi nga xam ne moom la yeese nag mooy kalaam mooy mooy ilmu mu ju doon ilmu képp nga xam ne yow bala ban naa diw mu wax waxit la mooy diw xam na kalaam te fekk maanaam soree na ñaari mafhum yi diw mu waxit la mooy diw xam na kalaam léegi te maanaam ñaari baat la yu bokkut benn yoon wala boog bee baat la boo xam ne day ab xam-xam buy bii nag jëf la aw melokaan la nekk ci borom bi mu sàkk teg ñun war ko amal nag bu nu amee xam bu nu amee euh, tawxiid nga xam ne mooy wéetal yàlla ci lépp wéetal ko léegi nag am na ay étape waxuñu ay aqsaam ay maratib lañ wax masalan li jàqale diggante aqsaam ak maratib mooy bu fekkee madrasatu taymiya moom aqsaamu tawxid lay wax day séddale tawxid ñetti kat ñetti ñetti xaaj tawxid uluhiya tawxid rububiya tawxid asma wa sifaat nangam léegi nag li taxale diggante moom maratib yi imaam imaam Ghazali saxal mooy dafa mel ni ab ab tool bu dee ñële dafa mel ni dañuy tawxid ñetti tool la boo ñëwee ci tool bi dama goo ci tool bi am meññeent boo ñëwee ci bii yaa ngi soog am meññeent imaam nag dañu ne tool yi moom benn tool moo fi nekk waaye nag yow dugg nga ci tool bi waaye wittagoo lu bari ngay gën di dox di witt di gën di dox di witt ba àgg ci yow amatoo frontière yaa ngi witt la neex loolu moo wutale diggante ñaari école yi ci anam googu buñ ko mën a joxe ci misaal mu jege mu ni xam tawxiid wéetal yàlla googu booy sóoboo yaa ngi ci biir waaye am na ñeenti étape nag bu njëkk bi mooy euh, koo xam ni jël nag baati seede yi rek tudd ko moom lay tuddee dani dafa am lubbu maanaam dafa dafa dafa am aw xott ab aw xottu amaat ñaari xottu ak lubbu am lubbul lubbi al xasru wa xasru xasru wa lubbu wa lubbul lubbi mu ne ci misaal ba nu ko jox dañ lay jox ab banaana xottu njëkk bi ak xott wi ci topp ak lubb bi nag ak diw gi nga xam ne moo nekk ci biir mooy lubbul lubbi diw gi nii bi bi bi bi bi génn léegi xott wi euh, moom mooy tawxiid bi nga xam ne mooy tawxiid mu naa mooy munaafiq yi li ñuy wax mooy tudd baat bi laa ilaaha illallaah yam ca nga xam ne fasoo ci dara ci sa xol yam ca kooku moom li mu man mooy fegal borom jaasi ci àdduna tudd nga ko baax kon maanaam ci àdduna kenn du la ndax tudd nga baat bi waaye fasul dara ci xolam kooku mi ngi ci biir tool bi waaye witul dara witul dara léegi nga jël ku ñaareel ki nga xam ni euh, dëggal na baat bi ci xolam dëbbal na wala bokk moom bokk na ci biir jullit ñi dëggal na ko léegi nag baat bi moom fas na ko maanaam jàpp na ko moom laa ilaaha illallaah ji bu ko defee ñooñu mooy awaam bi wala boog ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñi ngi dox ci jullit gi yooyu maanaam foofu la ñuy doxee bi nag mooy nga gis walla boog nga suubu ci yoon bi ci tarixul kashfu maanaam ku suuf yooyu nga xam ne ñoom mooy mooy gaar gaay nga dem ba nag suñu borom wuññil la ci nga xam ak wóolu nag nga amug nga amug wóolu comme ni nga xam ne siddiqu nay noonee la ni la ni la ni la ni la ni na la maanaam muqarrabu nay seenu tawxiid nga xam ne noonu la ni la la ni wóoloo yàlla am na nuurul nuurul xaq léegi yàlla gën na leen leer gi ba nu mën a nag tàmbali di mushahada euh, kusuufaat yooyu bu ko defee kon dina gis ay mbir yu baree bari moom muqarrib waaye nag mbir yi li muy bari bari moom euh, kenn rek la ciy gis mooy moo koy génne mooy suñu borom dina gis mbir yu bari gis na nangam ak nangam am na waaye yëpp da koy delloo ci kenn moo moo ko gongi ñoom ñëpp nga ñëw nag ci ki nga xam ne mooy euh, siddiq siddiq bi ki nga xam ne moom àgg na ci dëgg loolu suñu saam naa ku dem ba xuus ci ndox ba nekk ci biir géej gi ba lab ci nga xam ne boo ko laajee yaay ndox la lay wax foo nekk ndox noo tudd ndox foo dëkk ndox léegi nag mooy siddiq bi nga xam ne dëggal na baat bi ba àgg nag moom ca njombaxtan la wala boog suñu borom tëbb na ci leeri suñu borom yi doon wala boog ñu ni tuddee alfanaaw ci tasawuf comme ni ko ni ko imaam taabire wala boog ñi nga xam ne jeex nañ ci tawxiid mooy dugg nañ ci tool bi ba raafal ruqi yëpp maanaam amutul fenn fon bàyyi léegi ñoom nag ay siddiqoo na la bi tawxiid bi wala boog jeex nañ tàkk ci tawxiid bu ko defee kon kooka fa fa mu nekk mooy moom ak jeex loolu mooy li Muhammad Iqbal di wax ci moom donte maanaam gëm na tasawuf ji wala mi ngi ci doon dox mais loolu nag moom nee na ci la d'accord ndax moom da doon euh, maanaam moo xam mooy philosophe pakistan yi ba euh, moom la nag fanaaw googu day yàq day wàññi xorriya gi nga xam ne moom la tànnal doomu aadama waaye euh, bu dee imaam moom doxina mooy wala boog suufiyanke yi dañ ciy doxe mooy dem ba doo gis kenn ku dul sa borom ci ñooñu mooy siddiqu na ya kon ñeenti yooyu ñooy ñeenti maratib bi nga xam ni ñoom la tawxiid bi amee bu ko defee kon tawxiid bu njëkk bi moom lim la mënal mooy fegal la jaasi ba kenn du la caw li ngi tamit bu ñaareel bi moom mm, day tax ba mooy tawxiid bi nga xam ne moo intéressé kalam mooy tawxiid bi nga xam ne moo intéressé ilmul kalaam xañ na loolu moo tax euh, imaam euh, Ahmed loo ci téeréem bi taxdis muy wax ni imaam Ghazali tawxiid bi mu wax ni mooy tawxiidul awaam mooy tawxiidu saxaaba yi maanaam ah, bi nga xam ne moom la wax ni moom eh, xañ na loola mm, gis gi muy gis wala boog gis ni moom dafa bokk ci wexdatul wujud nga xam ne bu ñëwee ci mar martaba bu mujj bi xañ na loolu day jàpp ni imaam ci wexdatul wujud boobu lay woote tax waaye eh, tawxiid bii nga xamee seen ni moo nekk ci kalaam bi kalaam yi bi nga xam ne dem na ba sóobu ci mën naa at ci bidaan ndax xam-xam boobu wala pas-pas boobu boo ko yoree wóorul day mën naa sànq ndax bu ci bidaan duggee day yàqu ni ki noonu tamit kalaan bi kalaan bi ngay xóot rek pour di ko jàngat man na koo tas man man na koo yàq maanaam comme ni nga xam ne moo koy sécuriser mooy xam-xam bi léegi nag boo fa jógee nag ngay sóobu tawxiid irfaan yi bi mooy ilmul bi nga xam ne moom la sëriñ bi euh, wax ni mooy mooy mooy mooy mooy beneen bi indi ak kamaal bala ngaa mat ca ngay àggee kon yaakaar naa moom moo moog imaam ñoo bokk gis-gis ki anam boobu mooy xam-xamu baatin bi nga xam ne moo la yóbbu ci nga mat ba mën a soobu am fanaaw ci tawxiid ba jeex ci tàkk bu ko defee ñetteel ko ñetteel ki tamit moom euh, mushahada na waaye gis na ay mbir yu bari bu dee kii nag moom gisul kenn ku dul suñu borom maanaam benn xaqiqa la gis bu ko defee kon euh, mooy ki nga xam ni moom siddiq la wala boog leer na ay kiiraay bi si diggante ba boromam xam na léppam loolu moom martaba la wala boog garaat la boo xam ne ñoom noonu la doon doxee nga seet ni kon ci diggante boobu ñoom ci la nekk ci tawxiid di ko woote kon yaakaar naa ku wax tasawuf mën ngaa wax ni mooy tawxiid ci genn anam waaye wax ni tamit tawxiid dina la yitteel ndax daa bokk seen point wala mooy seen point benn moom la nag bu ñëwee ci tawxiid bi nga xam ne dëppoo nañ ci ba xam ko dañuy wax wéetal yàlla bu ñu koy dégg di wéetal wéetal yàlla wéetal yàlla lan lan war a wéetal yàlla ak lan ko wër lan lan ko wër la wéetal lan lan war a wéetal yàlla mbir yoo xam ne dañ ko cee war a wéetal ak mbir yoo xam ne waruñu ko cee wéetal bu dee euh, loola dañuy dem ci madrasatu ashariya nga xam ne ñoom lan lan gis ni dañ koo war a wéetal yàlla wala li nga xam ne waruñu see wéetal yàlla ñu dem ci delluwaat ci cosaanul al furuq bu imam al qarrafi bu ñëwee ci al makki ba nam ko tahzibe ci tahzibul furuq booba moom la ñuy jël maanaam ngir dirasa loola ngir maanaam dañuy wax ni li nga xam ne war nañ ci taqsim war nañ koo wéetale yàlla ak leen ko war a yéetale dañ koy séddale euh, ñetti xaaj mm-hmm. xaaj boo xam ni dañ cee war a wéetal yàlla bi ittifaaqil ulamaa yi ñëpp dëppoo nañ ci moom yàlla moo ko moom ak boo xam ni kenn waru ku cee wéetal bil ittifaax donte am na ñu tànqib bil ittifaax bi ak xaaj boo xam ne dafa am wóote ci ndax war nañ ko cee wéetal wala wéetal ko cee bu dee bu xaaj bu njëkk bi nga xam ni dañ cee war a wéetal yàlla mooy ñeenti moom ñeenti xeet la am ñeenti façon mooy bi ci njëkk mooy jaamu jaamu moom yàlla moo ko moom julli woo xeeti julli yëpp naafila ak farata ak amul kenn ko naa la wooral may julil ma tey suba nga nga ne allahu diw pour kàbbaral ko déedéet woor yooya yi ca maanaam martaba ak euh, yooyu moom dëppoo nañ ci wala boog di ëpp dëppoo nañ ci ni kenn moomu ko kudul subhanahu wa taala beneen xeet bi ci des ci ñi li dëppoo ni moo ko moom mooy sifaatul afaal yi melokaan yi jëf yi bind xalq suñu borom rek moo koy def jëf bind wërsëgale raye dundale dekkale euh, joxe texe nangam yooyu nga xam ne ay jëf la suñu rek moo koy def nga xam ni kon da war war di xam ni suñu borom moom moom moom yooyu kenn moomu ko nag bu fekkee ne da am lu gongi ko ci ñun wala mu ko ci suñu borom wane ni diw def na nangam comme seen subhanahu wa taala ni wax ci Seydina Isaa ni kaana yuhyil mawta wala boog ñun li ñuy wax xatalahu summa xatalahu summ wala liy wax ni masalan axraqahu naaru nangam yooyu bu ci man di doon du xaqi dañuy dañu koy delloo ci ni maanaam suñu borom ci xaqiqa moo bind moo bind rey bind léegi nag jël safara maanaam wala wala bokk euh, summ tooke suñu borom moo ko bind bind dee jël tooke mu doon sabab ci dee kon dafa bind dee bind tooke bind sabab li fi nekk lépp moom moo ko moo ko moo ko ko kon amul kenn kuy rey wala kenn kuy def ku moom mooy ci martaba moom nga xam ne moom la gis léegi ci imaam ni mu ko euh, dirasa bu ko defee mu sabab bu yooyu ak mu sababaat yi tamit duñ ko wax ndax banam beneen pàcc la mooy kas boog ak diggante madarase montazila yaag jabri yaag xadri yaag dañ gisee dogal yi wala boog jëfi doomu aadama bi yooyu waxuñu ko waaye li ñu wax rek mooy ni ñu waxam moom suñu borom moo koy wéete ci mazhab wala boog ci aqida ahlu sunnati wal jamaa hmm. bu ko defee lépp loo xam ni tamit day jóge ci yonent yi ci mu'jiza wala muy jóge ci awliyaaw yi ci karaama wala yu ni mel euh, da xam ne suñ borom moo jël karaama booba bind ko bind wala bind sabab wala mu jaarale sopp loola mu jaar ci moom waaye moom dañ koo war a wéetal ak def akuk bàyyi maanaam ak def akuk amal akuk sos loolu moo tax euh, nuxaati bu ñuy taarif yëpp dañuy wax luxatan wa islaaxan waaye bu ñëwee ci alfaailu dañ koy taarif xaqiqatan wa luxatan soo ko ñëw ci islaaxan ñu ne alfaailu xaqiqatan huwa allah subhanahu wa taala wa luxatan huwa man awjada man awjada al fiala wa istilaaxan ka marfooxay ata zaydun munira wa ci huwu niamal fata bu defee kon nga xam ne foofu la ne am ñett mooy alfaailu aji jëf kenn rek lay doon xaqiqatan keneen ku mën doon yow jëfoo ci xaq waaye sabab nga doon wala wasit da ngaa doon sabab loola wala nga mu jaar ca mais yàlla moom dañ koy wéetal ci ak sos ni ki noonu tamit taxalluqu sifaat yi mooy ñetteelu xaaj bi melokaan yi suñu borom mooy aju ci yépp loo xam ne si ni aw melo la wul gis ñun bi maanaa xam ak suñu borom nga maanaam mbooleem lu xam ci kaw suuf ci la aju ni ki tamit na melu suñu borom lépp loo gis mu jàpp ni mumkinaat yépp ci la aju hakaza mboolem sifaati basar ba mboolem mawjudaati ci basaru suñu borom bi lay amee moo xam baaxee la wala fànn yi yëpp ci am ak suñu borom wala boog ci euh, nangam kon sifa yi taalluqaat boobu moom rek moom suñu borom moo jagoo loola. ñeenteel bi nga xam ni moo ko jagoo ci ñëpp dëppoo ci mooy bépp baat boo xam ne wax na ni yàlla moom lañ ko war a kennal moom lañ ko war a jox moom lañ koy mooy lu mel ni baatu allahu baatu subhanahu wa taala baatu tabaaraka baatu yooyu nga xam ne arrahman baat yooyu nga xam ni arab yi ci boppam bi ni tër dañ koo tër ngir yàlla képp yooyu it waajib la wala boog ittifaax am na ci dañ ko war a jox yàlla kon boo xoolee wéetal nga naan ñu ne masalan wéetal diw ñu ne wéetal Serigne Touba wala kennal Serigne Touba man naa man bul jàpp ni rek maanaam kenn moom wala yàlla moom ci lépp moom moom kenn yëpp waaye yii mooy ñeenti point yi nga xam ni kenn ak kenn yàlla moom moom la jàpp moom moom moo ko moom tawxiid yi nga ko war a wéetale bokku ci kenn léegi nag keneen mën naa am loo xam ne moom suñu jox na ko ko ban kenn waaye boobaa ko ab maanaam mis lay doon yi nga xam ne dina ko bokk nit ñi dinañ ko wax léegi bu ko defee kon loolu mooy lu mel ni arab yëpp daj nañ ci euh, li nga xam ni moom la euh, shaairub yamaama waxoon dafa waxoon ni alawta bil majdi yabna al akramina aba wa anta gawzul wara la zilta rahmana di wax musaylamatul kazzab yamaami daal ni yow di wax mu xam zélimatul xasab itlaaxu baat arrahman arab yëpp sabbaan nee na ñoom loolu day wane seen tafannul bi ci kufur rek maanaam seen kéefar bu bu métti nga lay wane rek ñëpp temps xiib wala boog ñëpp daj itlaax boobu ba sax euh, al anba bi wax bayit goo xam ne waa ji dinañ ci raddu daa ko alawta bil kasbi yabna al axbasayni aba wa anta muxwil wara la zilta shaytaana baat yooyu subhanahu wa taala rek moom moom nga xam ne moom lañ ko wéetale ci mooy ñeenteelu xaaj bi léegi nag mooy ñeenteelu naw bi ci xaaj bu njëkk bi bi nga xam ne ko war kenn la suñu léegi nag ñaareelu xaaj bi nga xam ni moom kenn waru ko cee kenn kenn waru ko cee kenn léegi boobu nga xam ne kenn waru ko cee kennal mooy lu mel ni ki al moo tax wexdatul wujud bari coow wexdatul wujud boo nee yàlla rek moo fi nekk kon li muy jamtal mooy lépp day yàlla walla wala moom lépp yàlla la nit diw yàlla la diw yàlla diw fulaan yàlla la déedéet kon dan naa yàlla ak wujudam am na waaye am na yeneen wujud kon kenn ak ak nekk duñ ko duñ ko wéetale yàlla ci ak wujud ndax bu fekkee ne dana wax loolu nag xaarij yan gis nan leneen nekk lu bokkul ak yàlla buñ delloo ci zihn wax mooy bu nee yàlla mu doonul bu ne aynul mawjud doonul al wujud wala boog al wujud doonul aynul mawjud ñu dellu ci zihn gis nan boog wujud goo xam ne wujud mumkin la ak wujud goo xam ne wujud maanaam waajib la léegi nag yàlla jël wujubam nit ñi jël seenu wujud nga xam ne kon bu boobaa ak wujud moom duñ ko beral subhanahu wa taala ni ki noon tamit yenn sifaat yi ak axwaal yi lu mel ni dégg gis yàlla samiun basiru waaye du caagi na ni ëpp kenn la moom doo ngay gis moom doo ngay dégg déedéet yàlla waaye duñ ni rek moo am iraada mooy xaaj bi nga xam ne ñoom ko euh, jox suñu borom bu ko defee kanam axwaal yi ak nisbiye yi wéetoowu ko ak taxaddum ak taaxur maanaam si seexu naa damay nekk sama wet jiitu wala boog mu jiitu am ñu mujj am ñu ne ci ginaaw wala ak maaya yooyu nga xam ne ay axwaal la wala ay nisbi diw man naa jiitu diw diw jiitu diw kon jiitu yàlla maanaam du caagi ne moom dekk amul jiitu jiitu nangam yooyu mooy xaaj bi nga xam ne mm, dan du ko wéetoo maanaam kenn du ko ci wéetale yaakaar naa bu fekkee li ma bëgg a wax leer na hmm. euh, ñetteelu xaaj bi mooy bi nga xam dañ cee wuute boobu nag mooy waral farqu te mooy mm, waaw balaa bii ibnu ibnu chat dafa taaxib wax ji maanaam weex da wéetal yàlla ci wujud gi nee na yàlla dañ koy wéetal ci anam yëpp ndax ba ci wujud yàlla ak wujudam day wuuteeg wujudu ñeneen ñi ci anam yëpp nag bu ne al al wujudu waahidul mawjud wala al wujud ghayru waahidul mawjudi ci sifa xaarij yi ak zihni yi yàlla bu jëlee ak wujudam ba pare la ci la kenn ku nekk soog amaat leneen waaye moom gisul comme lii maanaam moom a coowaat waaye ñetteelu xaaj bi nga xam ni moom lañ wuute mooy waral farq bi te moom ci kalaam la ñaari njëkk yi kalaam la moom fiqh la euh, moom mooy lu mel ni giñ ci kañ leen war a giñ ndax yàlla dañ ko war a kennal ci giñ wala déet bu ko defee moom it ibnu rushdi indi na ko ca kii ba euh, bidaayatu bidaayatu mujtahid ak wax ci sofaan ya ñu wax ca ay wax yu bari bu defee mooy xaaj boobu rek ak ndax dañoo war a giñ yàlla wala tawassul yooyu bu ko defee li nga xam ne indi nañ ko ci al-Izz ibn Abdussalam moom nee na yonent diine bi salaam doon def Shaafi'i la bu fekkee ni wér na ni yonent bi salaam daana jàngale ñuy wax allahumma bi xaq na nga ahidi bu fekkee loolu wér na moom kon dina dagan ñu tanzim maanaam nit koo xam yàlla màggal na ko ci yoon wi waaye liñ liñ ci wér liñ ci ñëpp dëppoowul ni moom kenn du ko def rek ay laata Uzza mooy ñi nga xam ne màgguñu moom ay ay xërëm la ñooñu moom kenn du génne ci ñoom waaye ñi nga xam ne màgg nañ nag moo am xilaat bi ñenn ñi yonent bi sansan doog moo ko jagloo ñenn ñi lépp lu lu kii ci lu lu màgg mënees na ko caa màggal loolu mooy bu fekkee ne waa ji xool ak tanzim mais bu fekkee da ci jublu tawassul moom ala kulli xaal bi bi fulaan bi jaahi fulaan bi ci tawassul moom dagan na moom ci ñoom li gën a siw ci mazhab bi wala boog maali léegi ñoom noonu la euh, tawxid ñoom it noonu lañ sonnee tawxid ci di ko théoriser donte seen maraati bi nga xam ne moom lañ doon jaar bu fekkee ni waxtu yu maye na ko dinañ dinañ indi comme ku mel ni alxalla xallaaj maanaam xallaaj euh, wala ibnu arabi laa bëgg a wax hmm. ibnu arabi muhiddin hmm. dina wax aqidaam maanaam ni mu ko leeral ci biir futuxaat hmm. indi masalan im Cheikh Abdul Xaadir Jilaani ca risaalaam ba ni mu ko indee nga xam ne mboolem firqa rafida bu newoon ci biir ci jamonoom daj dina la ci biir nas risaala bu gàtt alhamdulilah bisimilah waaye waxtu bi may waaye ñu xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom indi na ñoom position bu bu leer bu ci leer nañ ñi mën wax rek Euh, Muhyiddin Ibn Arabi wax na ni euh, ci biir futuxaat ci baabu euh, salaas mi awa sab'a wa sittin ni laysa indana bi hamdillahi taala taqlidun illa li shaarihi sallallahu alayhi wa sallam ñun duñu roy kenn kenn kenn ku bokkul ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nin mu ni waxaat ci beneen bunt ni wa alam anna jamia ma atakallamu bihi fi majalisi wa tasanifi innama huwa min hadrati alquran wa xazainihi maanaam ci péyub alxuraan bi rek ak ay ndàmbi alxuraan rek ci lay wax samay samay yi ma def ci li ma dëxañ ci téere yi ak li ma dëxañ sama jataay yi yépp génnuma xadrab alxuraan bi waaye dafa fekk ne nag yàlla moom mooy maye ay téere comme li nga xam ne la ko Sha'rawi euh, mutawalli Sha'rawi ci tafsir bi hmm. ci suratu Luqman bi mu wax Luqman itiyaan gi yàlla dikki Luqman ci Luqman du yonent du nangam nit ku ñuul ku gàtt nangam mel ay melokaan suñu borom dikke ko ba solo lu mu ne loola li ci wax mooy xadisul kursi ba nga xam ne subhanahu wa taala day wax ni abdi atiani takkun rabbaniyan taqulu li shay'i kun fa yakun yow sama jaam bi topp ma rek nga dem ba bokk ci am rabbani ak am nguur man wax dara sax kun fa yakun comme ni ko sëñ bi di waxee ni suñu borom jox na ko kun fa yakun mooy wattaqullaha wa yu'allimukumullah wala boog may taqillahi yaj'al lahu maxrajan ñoom maratib ya xuus gëni xuus ci tawxid wala ak sidqo gay ne ci ñoom mooy tax ba ñu am bu ci anam googa li jublu mooy gaa baax yi ñoom xañ na mën ngaa bañ a dégg seen i waxin ndax falasifa yi dëpp moom dañuy am problème ci luxa ndax baati ak maanaa yi boobu problème la bu yaatu baati ak yi moo tax ñu bari di dal ci kaw mag ñi ci xamuñu dëgg-dëgg maanaam tolluwaay bi waxee wala boog ndax dañuy wax ni man ngaa ndax maanaa yi mooy jiitu baati bala ngaa mën a xalaat da ngay am ay maanaa wala nga am mën ngaa xalaat ba sori ci doom maanaa kon li gën a wér mooy nga xalaat ba sori ba am loo xam ne sax doo ko mën a taabiir ci baat yi nga yi jàppalu ca wala xeeti mm, baat yi nga am isan loolu mooy seen jafe-jafe ñi ko njëkkan a ñi njëkkan ci weddi ñi ci yàlla dimbali ñëpp bari na wala boog ñi nga xam ne aw nañu yoon ba ñëpp dana mujj dellusiwaat al Izzuddin ibn Abdusalaam moom ci misra <laughs> euh, Cheikh Abdul Wahab Shaaraani nettali na ci tabaqaatul kubraani am na jotaay boo xam ne ñoom mës a toog ñoom gaa yooyu mag ñi ñoom ponkal ya ñoom ibnu daqiiqul iid euh, Cheikh Makiruddin al Asmar euh, ñoom ak gaa yi ñuy waxtaan té génn téere risaala al xushariya ba di ci waxtaan ba yàgg euh, seex abul xasan Saazili daal di ñëw jataay bi ñu kaay waxtaanal mu ne yéen ngënk yi ñi ngi teew kon man diru may waxaat mu ne leen ñu ne ko déedéet waxtaanal mais eh, bi mu waxtaan Yaziid diin ibn Abi Sufyaan daan daanu yuuxu comme ni bi nekkoon naa gars yi kaay leen diglu waa ji li muy wax wax ju bees tàq ju soog a jóge ci nii wax ju soog a ci yàllaa gi nii kon ñoom ca moom bi muy soog a door dafa doon wax ni ñun ndax soxla nañ leneen lu bokkul alquran sunna te kon te maanaa ci ponkal la bokk ñépp nungul ko ci mazhabam nangam léegi nag euh, kon ñoom foofu la nekkoon sëriñ bi fan la nekk moom wala boog fan la nu bëgg a teg ñun hmm. yaakaar naa sëriñ Tuubaa tawxiid moom wax ci wala wéetal yàlla sëriñ Tuubaa wax ci moom hmm. mën naa bañ a am yitte ju bari ndax kenn ku ñu ne ci ñun sori soriwul jot na ci doon ci misaal rek mooy natt yim jaar génn ca ca ñu bari xuus ca wala boog ñu àgg ci martaba moo xam ne martabam nubu wala ca masalan génn ñu jëm loolu tamit bu ñu koy wax ci tasawuf ñu bari dinañ leen indil jafe-jafe mooy que bu ne wàllu sàngam def na nangam nga weddi ko ni ndax ab yonente defoon na nangam te mujj jëm loola du du du waral ak afdaliya maanaam wàllu sàngam mujj ji nangam ca ab yonente mujj ji loolu lu waral ak gënal maanaam dañuy dóor xaw boo xoolee dañuy darbul islam dañuy darbu ak abdul maanu ci Omar ibn Abdul Aziz waaye du tax kenn wax ni moo gën a maanu saxaaba yooyu nga xam ne mooy dox ci diggante yàlla mu may diw nangam te mayu ko ab yonent loolu warul ak afdaliya yonent bi ne comme sallallahu sayyidina Isa kaana yuhil mawta te seen waxu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye warul ak gënal sayyidina yooyu nga xam ne mooy jaar ci awliyaa yi wala ak diggante ak yi loolu du nis ba wala du anam gu ni natt ba war a war a war koo weddi ndax boo toppee yàlla rek mu jël lu ko soob jox ko ku ko soob hmm. ci yow na koy toppe wala boog yow comme chanra bi wax doonal yow rek ko waaj mën a nekk ci yoon rek bu ko defee seriñ bi moom fi mu nekk mooy wéetal yàlla képp moom jëmmam lakka tawajjuhiya bi tawxidi maa nabi rasulika alwahidi uxallidu tawxida lil ilahi muxallida madaxa nabiyillaahi maanaam tawxid moom lay saxal ngir jëmmi sama borom gi maanaam moom wéetal yàlla moom ci laa nekk man jëmmi sëriñ maa ngi wax masalan seriñ bi moom ak tawxid moom fi mu nekk mooy wéetal yàlla te saxal ko wala boog sax ca wéetal boromam boogee ni ki noonu tamit boo yi ñu ko war a wéetale moom lan wax léegi ci mooy jaamu ga mu ne iyyahu a'budu wa asta'iinu wa innahu al-ma'budu wal mu'iinu kon moom rek lañ war a jaamu bi ittifaaxin sëñ bi na moom rek laay jaam kon xam naa leer na ni moom foofu la nekk tawxiid mooy diine ji nga xam ne moo jiitu wala mook iman moo ci war a njëkk ni diine ya tawxiidu ilaahi nnaasi bi sunnati lmaahi an ilxannaasi billahi amantu wa billazi wajab imaanuna bihi walin xaadal ajab ponk yi wax ci tawxiid ci fànn gi di ko jàngale bu ñu demee ci ilmu ga sëñ bi ne man jël naa yëpp yëmmati jàng ko wala bindal leen ko man gëm naa yëpp lin ñu war a gëm ci diine ji lépp laa jàpp maanaam déngi déngi wu ci ci dara lillahi laa li gayrihi wajjahtu moom rek moom lay jaamu kon bu ko defee tamit tawxiid gi moom ci la nekk bal sax yi nga xam ne sax kenn dëppoon ci ñu war ñu war koo jagleel suñu borom moom da koo jël jagleel ko suñu lu mel ni ay sant ak ay tàgg ak ay gërëm ak yooyu nga xam ne mën ngaa gërëm doomu aadama wala nangam mu ne nag ilayka wajjahtu boo xoolee taqdim gi mu taqdim nangam ilayka wajjahtu sana wa shukra walhamdu rida maan wa zikra yow rek laa ko jagleel kon donte am na ñeneen ñu war a jagleel mais nag moom ñoom wala siddiqu ne ñoom si loolu mooy seenu melakaan mooy dañuy jël dañuy passé li li leen nit ñi mooy jago jago ga wala ba xuus ga ne xuuse ca seen borom ak ca pays ya bu ko cant gi muy cant sax passé na ci martabam di ko jagleel waaye day dem ba nag àgg ci cant rek wa in shakartum la azidannakum mooy ñu defal la benn mbir nga cant ko loolu déedéet waaye li ñëwagul nga ci sant loolu mooy cant gu foor gi euh, mooy cant gi nga xam ne nag moom la suñu borom dikk di am ndolleent te moom li muy wax naa yashkuru kulliyal karimul karimal farda inshaahu mooy sama lépp day sant suñu borom bu ko soobee moom suñu borom ah, kon cant gi moom balaa am ci suñu coobare gi borom bi lay amee kon yaakaar naa moom jël na cant gi delluwaat ko borom bi waaye laajaat ko cant ni cantaat ko ci geneen cant ndax bu bu ko soobee rek mu cantaat ko loolu mooy cant gu dul dëgg mooy wa in shakartum la azidannakum mooy ziyaada ga kon euh, dolli dollente gi ci foofu lay mën a amee mais cant gi nga xam ne na maanaam dollente du ci am ndax pare day jeex bu ko defee kon loolu tamit day wane Euh, maqaamam kaweem gi ak mushahada gi nga xam ne moom mooy shahada borom bi te maanaam dañu ko euh, dañu ko benn yoon comme ni nga xam ne noonu la ko sang bi euh, misaale noonu tamit noonu la ko Cheikh Mouhamadul Bachir indee waaye àgg na ci nag li ñuy tuumaale yeneen gaa yi bi mu ne huwa allazi lam ara gayrahu wala araahu fi shay'in hada wa nawala loolu lu am solo la dina tax ñu mën a xam ni ñoom gaa yi baax liy génn ci ñoom di wahdatul wujud dani huwa allazi lam ara gayrahu mooy ki nga xam ne gisuma ku dut moom waaye nag wala arahu fi shay'in gisuma ko ci dara xam bu fekkee gisuma ko moom da ngay gis ko di bëri rek ah kon lépp lu mu gis yàlla la de bëgg da nga yaakaar ne man naa ñiy wedd lépp lu mu gis rek yàlla la kon kon yàlla dong moo fi nekk nee na ak wujud lay woote wex datul wujud lay woote jeex na mu ne wala arahu fi shay'in ñoom noonu lañ demee la ñuy ci lépp lu ma mën gis gisuma ci suñu borom yàlla rek lay gis kon maanaam li mu jublu ci marra bi mooy day dindi léppam comme mooy marra bu ñeenteel bi nga xam ne da ngay dañal lépp gis benn xaqiqa génn dëgg moo fi am yàlla suñu borom doo gis dara lu dul moom teg tamit moom doo ko gis ci feneen moom képp jëmmam ji rek ngay ngay ngay ngay ngay jàmmaar lool wala boog moom ngay ci ci biir leeram rek ngay tëmbu bu ko defee kon moom jëmmam foofu la nekk wala boog noonu la jeexe ci euh, tawxiid ji bu ko defee nag li nga xam ni mooy al muridiyatu tariqatul muridiyya wala xarakatul muridiyya coow yooyu nga xam ne gars yi wala baaxisuuna yi jamono ji ñu ngi koy wax ndax ab murid ab tariqa la wala ab ab xaraka la donte man ab tariqa laa ko gisee man donte sama xam-xam àggagul ci may gis sax waaye man moom laa yaakaar ndax mbind yi nga xam ne ci ñun wóolu sëriñ bi neen ussu tariqati al bi tawxiidi wa hmm. nanga bu kadalika cheikh ahmadul miski sëriñu gaa yi nu mu ko waxee euh, inni bi hamdillahi ashariyu aqidatan wal fiqhu malikiyu tariqatul xadimi zin nahjil qawim tariqati hada siratul mustaqim yaakaar naa kon boo ak shawahid yooyu di nga mën a xam ni kon yaakaar ab tarixa la donte nag li tax ñu ni ab xaraka la ñoom lañ ci jublu mooy daan moo gën a yaatu ab tarixa ndax tarixa ña boolay wér di yeeg di ci am ak ci yeneen tarixa yi nungu woon ko waaye loolu yaakaar naa dàquwul ak moom waaye gis-gisu sëriñ wala ba gis-gisu tarixa bi moo moo moo laaj loola waaye du dàq mu doonu tarixa ndax li ci li ci tartu moo mooy mooy mooy yéeme wat hmm. ndax bu ne du tarixa dina am tijji buntu beneen buntu ba muy tijji mooy am na ñu taxaw ni kat ab tarixa warta naa ginnaaw tarixa sàngam bu defee loola te sëñ bi ab tarixa la wax ni moom la woote bu ko defee buñ buñ ko saxalee day mel ni du euh, waaw nangam <laughs> loolu lay lay jubloo wax bu ko defee nag ci xasida yi moom nga xam moom la sëñ bi sotti yoon wi pour ñu man koo xam yaakaar naa bu ñu bëggee jàngat yoonu murid wala tariqatu muridiyya moom da ngay delluwaat ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon wax wala mu bind ko wala ca laakaar naa mooy di nekk ci biir euh, téere yi bu ko defee moom xasida yi bi ko sëñ bi tàmbali ba bi muy mujjee am na baxsu bu ma defoon boo xam ne dama ko caa xaajoon ci ay anam yu bari mooy fitra zamaniya bi xasida yi wute na ci yaakaar naa bi mu tàmbalee ci taalim beeg yooyu ba mu dee ba ci kanam wute na ba ci biir tamit mun a jaati yin nii gis ak yin mënta gis ak yooyu ay ay kii yu bari la ay xaaj yu bari la waaye tawxid képp mooy ak xam-xam goo xam ni sëriñ bi bàyyiwu ko ci biir xasida yi ci jamono ju nekk ni ki doon tamit ci xaaj bu nekk tawxid képp mooy mooy ci fànn goo xam ni sëriñ bi bàyyiwu ko ci benn anam bu dee ci des fiq ay naxu yooyu dem na ba yàgg mu ni dama koy bàyyi ngir léegi dama istixaalu ci madax bi ak nangam mais li muy boo xoolee xasaayid madax yi ak xasaayid salaat yi yooyu nim ni mu koy tëggee ci tawxid moo gën a sax foor ka tawxid boobu ndax tawxid baatini bi moo ci ëpp ak donte léeg-léeg mu indi tawxid wala mu indi masala bu sew ci biir xasaayit yu mel noonu ci biir masay masalay kalaame yi waaye bàyyiwu ko benn yoon te li ko waral mooy sëriñ bi bi mu teewee kenn ko xam euh, circonstation yi nga xam ne moom la diggee ci taarix ci anam goo xam ne dëkk bi jaxasoo bi wala boog muccama Sénégal doonu mu muccama boo xam ne bu amoon istixlaal la ci diina ju leer te pour mu mën a wér nag leer dem faw tawxiid moo cay jiitu wala boog leerub tawxiid mooy tax pas-pas bi nga xam ne moom la bëgg a samp mu am te mooy comme noonu ko Moussa Ka Cheikh Moussa Ka mu arrixul muridee bu mag bi euh, euh, ni mu ko leerale ci jasaawu sakuram bi anam yu yi nga xam ne moom la amee donte ñu baax ñii fi woon nag ci taarix ñun ñun jàng gis leen ñoo xam ne ñu baax lan woon waaye amuñu woon masalan dooley not mujtama bi maanaam amuñu woon dooley not société bi ba seenu mbaax mu not waaye li gën a na siiw daara yi sax dañ fi fekk maanaam inxiraaf boobu rawatina nag awaam ak buur yi nga xam ne ñu ceddi rawati bi fi nga xam ne nii moom la kusufat al géographie européen duggee ci dëkk bi mu gën a ta mu gën a tee yéeme kon li nga xam ne moom la war a def mooy samp nag lu lu lu lu lu jàmbar maanaam samp pas-pas yi samp pas-pas yi foofu la tàmbalee nag di sos xasida yi sos téere yi ma xam ni nag wala boog ñu gis ni kon sëriñ bi mën hëj tarbawiyam boo koy jàngat mën ngaa wax ni li mu bëggoon mooy former ab nit formé afraad yi ay kenn kenn kenn kenn ba pare nag soo ko wax yaa rabbi ijaalil muridina maa fi ka xasini hmm. ab murid la jàpp lu mu a mel ab julit nu mu war a mel nu mu war a gëmee kenn par kenn xale yi mag ñi subbaan yi ñëpp mu kenn ku ci nekk mu daal lay jagleen ni nga war a mel ba pare nag soo ko dajalee yaa rabbi ijaalil muridina loolu mooy tax société bi man may wax ne kon sëriñ bi moom daa bëggoon ñu am société Sénégal boo xam ni kaw tali ci taxaw chauffeur bi oto bi dawal chauffeur bi maanaam chauffeur bi dawal oto bi day sóobu emprunté bi day sóobu imam bi day sóobu sëñ daara bi day sóobu ñëpp nag ñu soog a dajale am société bu mat sëkk nga xam ne foofu fekk ndax abul hasan al-Shazali bi ñu wax léegi ab hmm. soldaar la woon bu am solo lool nag sax nag ci muqaawama al misriya hmm. ci eh, istimaaru français yi kon ñoom gis-gis boobu yaakaar naa moom la suñu bëggoon mais na malheureusement ñun amuñu sensu wala ba xaw ma xaw ma mu camaa wala fii la wala mu camaa Sénégal yi mais ñun dañuy dañuy xeeb wala boog dañuy dañuy téen comme ni ko sama sëriñ al kooki di wax dañuy téen du bari dun faral di xool ci suuf waaye boo xoolee alxurriyatul amma bi ñuy coow di wax ñi ko bind wala boog alxaqu ne ci maa yi den ko xam seen fànn gi ay Thomas Hobbes Jean-Luc ak français bi Rousseau ñooñu dajaloo du ay nit ñoo xam ne du dara dara lan ay xalaat lan doon teg rek xalaat sax saxul ci ñoom kenn sax lu ciy xalaat hmm. day changé waat ay joon diwi ci Amérique nit ñoo xam ne maanaam li ñu wax mais teewul bari tabax bu bëgg a tabax seen société seeni xalaat la ndim jëli ñoom hmm. pour tabax ko ci seen société fi mu ne ñun ñi nga xam ne moom la wala boog Sëriñ Tuubaa li mu tadwin kenn ci ñoom tëddi wunul ab sart ci waxi si boo ko dugalee ci biir sëñ ci biir mbiri sëñ li sëñ bi tadwin pour ñu mën ko jëfandikoo mën a jëriñ société ñoom kenn ci ñoom deful mënoo ko tim mënoo ko lim sax maanaam xardal lay toll xardal la ci toll xardal hmm. ci mooy loolu wës di ci arab waaye ñun malheureusement euh, doxiwul noona wala moog société Sénégal du gis amul gisin ci ay doomam bu dee arabe bi ni gis mooy jëli ñeneen importé bu dee tubaab bi li ñuy gis mooy jëli ñeneen importé malheureusement xasida yi jëriñoowuñ ko waaye sëriñ bi li mu dëxëñ mooy ñu am tawxiid pas-pas bu leer sukkandiku ñu nag pour mën a taxawal suñu ab société boo xam ne société Sénégal kaamil lay doon bu ko defee tawxiid yi nga xam ne moom la tàmbalee ci biir xasida yi wàcc ko ci tanzir maanaam ko théoriser di teg ci xeet yëpp nag arifaan baak kalaam bi yëpp ni ki noonu tamit di ko tatbiix ci gaay ñi nga xam ne ñoom la doon yar ñu nekk ci ñoom di ànd ak ñoom di dem ci diirub diirub li muy soxlaal tagg yeeg yëpp teewut tawxiid bi moom day dikk ba ci wakkaana xaqat bi rek boo xoolee euh, ni nga ko waxee ama shahid naa bi karaminta Muritani leen yëpp da ciy dellusiwaat xasida yi maanaam tawxiid bi bu ko defee nag moom woo tamit la def ci tawxiid moom doon woo ci ak tawxid euh, comme ni mu ko waxee usu tariqati al imaanu bi tawxid yi wal islaamu bi fiqihi wal ixsaanu bi tasawufi si ahmadullah fati fall daan ni li mu ci wax mooy tariqatul iman al qaim ala tawxidillahi wa ibadatihi waxdahu bila kufrin wala ishraak tawxid gi li mu mooy yoon wi nga xam ni moom la ni euh, jaamoo wala moom la ni wéetal yàlla ci ak jaamu lu amul benn weddi lu amul benn bokkaale ce loolu mënta am lu dul ni da am xam-xam bu doy ci ilmu tawxid am xam bu doy ci usuli tawxid bu ko defee nag murid bi mën a nekk am yaqiin ci ni kat fi mu teg tànkam foofu la sëriñ bi teg tànkam ndax fondement bu amul ci mbir loola du mën a jàkk bu ko defee kon sëriñ bi nag li mu fondé tariqa bi mooy tawxid ju leer soo caat ak fiqh ju soo caat ak tasawuf wala boog ihsaan gu leer daan ni leen ad'u ila ilahi bi tawxidi wa ma ra'aytu anhu min mahidi maa ngi woote jëme ci yàlla ci tawxid laa koy teg sama woote ci tawxeet laa koy teg di woote niki noonu it leeralaat ay mbir yu uh, ci tawxeet wane nu rek ci mu nekk moom mooy mooy mooy mooy mooy tawxeet niki noonu tamit noonu la ñu indilee ci tomb bi nga xam ne ci la ñuy wàccee waxtaan wi mooy xuppu ñu ci sofaanu tawxeet mooy bokkaale ishraak ni nga xam ne noonu la ci doon xuppee bu baax a baax moom it mu mu ñoroon ko lool. maanaam ñu sori sori sori shirk mu ñoroon ko lool mu wax ci yu baree bari moom it waxul sax ñun ñi nga xam ne ñooy murit yi waaye nasaraan yi nga xam ne ñoom ñoo ko doon jàpp mu nekk ni seen loxo day jàmmaarloo ak ñoom di leen di leen woo kon xanaa ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak kippaaram yaakaar naa wala boog ak ñorub jàngileb tasawuf ci tawxiid xanaa moom doy na wa doy na waar bokkuma hmm. ay dongaam waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ay noonam ñi ngi jàkkaarloo ak ñoom ngir bëgg ko faagaal ga jamono ju nekk mu taxaw nag amuk tajarru bu doy ni di leen woowaat waajahtukum bil xaqi za nasiha man radda xaqan jaa bil fadiha jazabtukum bi hadihi al abyaati wa innama al amalu binniyaati waylun wa niqmatun wa diqun wa bala li kafirin wa mushrikin lam yaqbala hudan wa rahmatun wa bushran abada li muminin ahsana xiina abada yéefari la taxaw di jàmbaar loon naan maa ngi leen di laay biire ba yàgg nag mu leen di mu leen di attaqué di leen dox ne leen leer ne bu leen li ngeen nekk bu leen ko bu leen ko jubal ba faatu kenn mën leen a sauver àdduna kenn mën leen a ci àllaaxira bu ko defee kon euh, ñun nag kon na yaakaar naa ay suñu diggante ak moom shirk doon lu doy waar mooy ñàkk mooy génn ci euh, génn ci cadre ñeent yi waxoon dugg ci nag cadre bokk leneen sëriñ bi leeralal na ni shirk ñetti xaaj la ñett bu ko defee xaaj yooyu boo xoolee mooy mooy delluwaat muy jàmmaar lool ak yi ñu wax ni mooy mooy war a moom lañ ko war a wéetali maanaam mu wax ni man ngaa shirku ci zaat mooy comme ñuy wax naa inna laaha thaalithu thalaatha wa min ilaahun illaa ilaahun waahid kon shirku ci jëmm ji am jeneen jëmm ji bokkul ak moom wala nga shirku suñu borom ci euh, masalan afaali mooy nga gis ay mbir yoo xam ni da nga naan diw moo koy def wala diw defu ko nangam wala boog nga def shirku boo xam ne da nga koy def ci sifaati maanaam di di ragal wala ngay gis beneen nit ku bokkul ak yàlla ci mbir mu man di doon moo tax mu ne abuduhu abuduhu ubudhu yow yow murid bi bil imaani wal islaami wa ahsani l ihsaani za stislaami wajtanibanna al kufra wal fusuqa wa shirka laa takun lahu masuqa yow murid bi da nga jaamu yàlla ci ak ngëm yàlla akuk islaam te nga moytu ak kéefër akuk kàccoor akuk shirk kéefër mooy jàkkaarloo ak wedd yàlla complètement ak fisq mooy jàkkaarloo ak xaaj bu njëkk bi ñu waxan ci tawxiid mooy ki xam dugg na ci tool bi waaye nag góobul dara ak shirk nag moom mooy ki nga xam ni yi nga xam ne mooy ñeenti ñeenti ñeenti poñ yi ñu waxan ni moom la ñuy wéetale suñu borom bi ci ak war nekku ci benn mooy euh, wala boog euh, soppi na ci benn mbir yooya ci keneen ku dul yàlla mu ne na nag laa tushriku dëhra bi rabbika al ahad shay'an bi xaqi qul huwa allahu ahad ngir jëmmi qul huwa allahu ahad ngir jëmmi yàlla ji bul bokkaaleeg sa borom dara dara dara ci nguuram bi diirub jamono bi yépp léegi nag lay biireeg wooteeg xupp ana anam yëpp la ci boole woon ba ci ana na xasida def da muy wax naan nawaytu fii dan nas mi nafya shirki li kulli man yaabudu rabbal mulki kun aabidan mujtaniban wa mumtasil li wajhi rabbika wa an siwaaku min bul waxuma sax ngay bokkaale moom ku dul sa dimb ji bul bul bul bul ci moom jàkkaarloog yàlla képp rek loolu mooy seen tawxiid ñoom wala ñoom seen martaba ba ci biir toolu tawxiid bi comme ni nga xam ne ñoom lañ koy euh, ñoom lañ koy kii ñoom lañ koy gisee mu ne yaqiniya al yaqinu an ushrika bi shay'an fa kullu mushrikin lam yantabi kon ñi nga xam ne ñoom am nañ yaqin ci biir tool bi duñ bokkaale yàlla ak dara moo tax sëñ bi ni yaqin googu nga xam ne nag mooy moom laa am ci yàlla moom mooy ki nga xam ne moom ay fegal bokkaale kon yéen sama ay donga na ngeen ko euh, bu ko defee moom képp koo xam ne nee na sóobu nga ci ak bokkaale wala ak euh, kéefër wala ak kàccoor bokkatoo ci yoon wi kon yaakaar naa moom waxuma am importance ci moom waaye moom la tawxiid du caag ne dafa am importance yi kon yoon wi bu ne bu demee war a war a indi natija waaye mooy yoon wi gaa yi baax seenu yoon mooy tawxiid boo bokkaalee bokkutoo kon yaakaar naa mooy taw mooy jëmm ji ñaari xaaj yooyu moo fi am da ngay génn bokk wala nga génn li lay nag benn la. boo ko jëlee bokk nga boo ko jël lu génn génn nga kon yaakaar naa moom mooy jëmm ja moo tax moom lay wax ne barratani rabbi min al ishraaki lii xallidal yaqiina za idraaki barrani l ilaahu min shirkin wa min kulli nifaaqin wa saadati damin baritu min kufrin wa min fisqin wa min shirkin wa rabbiya saadati damin lam yanxu shirkun kalkali wa laysa yanxul ifku lii fii mantiqi la shakka li fii ismati min kadari maanaam foofu la nekkoon moom nee na bokkaale moom da cee set ak kéefar da cee set ak fiso ak fisqa kàccoor mooy denc wax baatub laa ilaaha illallaah te fasoo ci dara sa xol hmm. loolu mooy fisqa léegi nag kufr kufr moom mooy taxaw jëhrën di wedd naa yàlla loolu moom wala yaasu billah bii lim la bu dee waaye nag li mu wuteeg fisq fisq moom lim la fekkal mooy jaasi rek ci àdduna comme ni ma waxee léegi nag ishraak mooy nga dugg ci biir tool bi ba pare di ruurte di ruur lii ba borom moom ko nga dagg jox ko kaneen ñii diw moom ko nga génne ko li yàlla moom nga jël ko di ko jox euh, ñenen ñi loolu yàlla na ci yàlla musal moom tamit nee na lam tanxu nii kaafiratun aw faasiqa bu jigéen képp ab yéefar bu jigéen du ma jublu si bokkul ci samay mbir kàccoor bu jigéen bokkul ci samay mbir aw zaatu ishraakin yow soxna si boo bokkaalee génn nga ci yoonu murit ki Sëñ Tuubaa mooy wax ak yow kazalika tamit wala munaafiqa am naa féq moom it bokkul ci sama ay mbir kon euh, noonu la sëñ bi nekkee woon ak lam yan xu ni kaafirun aw faasiqun aw mushrikun zu aw zu xasadin an nii na aw yow tamit kaafir bu góor bi wala faasiq bu jigéen bi wala euh, wala faasiq bu góor bi wala mushrik bu góor bi yow it bokkoo ci sama aw yoon kon ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk sëñ bi noonu la ñu woo ci diggante tawxiid wala bu xëcc nañu ci tawxiid ak sorel nu li nga xam ni moo di euh, sofaan ba muy yoonu muy muy muy ishraak muy muy bokkaale ga Euh, ñu nettali ni dafa am benn sëriñ boo xam ne daa toog ca ak gàmmam di dundal mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam waaye gars yi ñu koy wayal naa ko yaay sëñ diw yàlla sëñ diw yaay yàlla sëñ diw yaay yàlla benn waay boo xam ne ab solaar la bu doon naan sàngara moo jógee ci làng nga ñëw ba ci moom day ko ni ko waxal sa donga yii liñ lay wax ñu bàyyi ko daan ni ko qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad solaar bi mooy wax ak moom kon waxal sa dongo yi dina la wax nga nga bàyyi ko bi ma ko bi ma ko déggee dama ne kon kooku xam naa yaakaar naa mooy ñaari xaala yooyu mën nañ koo jël mën nañ ko xoolee ci diggante ci biir njàngaleem sëriñ bi bu dee ki nga xam ni mooy euh, mooy mooy mooy mooy sëriñ boobu mën naa bokk ci bayit gi sëriñ bi wax léegi ni lam yan xu nii naw aw faasixun aw mushrikun aw zu xasadin an nii na aw ñoom jubluwul ma benn yoon ab kaafir jubluwu ma ab faasix jubluwu ma ab kuy bokkaale yàlla jubluwu Euh, sulaar bi tamit mën nañ koo dugal sëriñ bi li wax ci ba muy tinul jaam ñi lan lañ leen tun bokk nañ ci lan doon tinule di wax naa wa in fa innahum wa in asawka yaa ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad maanaam donte nit ñi ñi ngi lay mooy waaye bokkaale wun la kon moom bokkaale moom tinuwu ko lam yushriku bika ahad kon képp ko dugg ci biir ishraak bi yow tinu bokku ci ñim tinu ak waaye nag boo ko génnee ak bàkkaar boo mën di def bàkkaar moom dañ koy fóot mënees koo jéggale sax bala ngaa faatu mënees na koo jéggale ba léegi bala balaa nangam mënees na koo jéggale bu nit ki duggee ci safara wala bok ci fóotum safara ba wala yaasu billahi soo ko génn moom waaye ñëpp dëpp nañ ci ni du sax ca biir safara sax kon kooka moom am nag mucc moom wala boog bokk na ci ni sëñ bi tinul boog waaye kële moom fu mu dugal amuñu ko ca donte boog safaan bam mooy am wala boog ki war a na jàngale moom fu mu ne moom lañ kon mujj jox darsa ba hmm. ñu ngi jéggulu nag mbooloo mi di tuub bu baax ci kaddu gi nga xam ne yëkkati nañ ko ci seen kanam. Hmm. ak gàttañ yi nga xam ne nii. Hmm. am na ci Maodo bi. ñu ko waroon a indee coono yeeg. Hmm. xaj na moo moo ko waral ak ñàkk xam-xam bi. ñu ngi tuubal bu baax seen xaadim. jégaluwaat bu baax a baax a baax. bu amee lenn loo xam ne nii dëng na ci wala lenn loo xam ne nii wax nañ ko du demewut noona ngeen jéggal na ko te xam ni. jubluwul ko li ñu jublu rek mooy lépp yéwén. di siyaarewaat waa jataay bi yëpp. sang si ñu fekk ñëpp. Euh, siyaarewaat leen jéggalu leen. bu baax te sàkku ñaan ci yéen ngeen ñuy ñaanal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah rek lañ lay wax ci bi waxoon nañ ne du hasard moo tax ñu tànn la wala li tax ñu tànn la teguñu ko ci teeyu bakkan sa jàmbarte ak it euh, sa nangoo jox xam-xam lu bare bari loolu rek a tax ñu tànn la. loolu nag lii nga xamee ne gaaral nga ko fi te ardu ko ci suñu kanam moo koy wane comme ni ma ko waxee woon ci mawdoo boo xam ne nii mawdoo bu riis la ndax ahamiyatu tawxid te bu ñu taxawee ci kalimatu tawxid kenn ku nekk war koo xam ndaxte day dugg waayu doomu aadama ci biir lislaam kon loolu waxoon nañ ne tamit lu bari coow la ci ulamaa yi daanaka day bëri ay téere yu bare bare yoo xam ne nii dañ ciy wax te wax ya am ci ay wuute lool te nga indi ko ci indi bu rafet rafet ci mbooleem firaqaat yi nga xam ne tudd nga ko ci lu mu demee nekkee ñoom alxadariya ay jawariya ak nga wàccaat ba ci lu nekkee ay ñoom al ashariya ay mu'tazila ay xawaarij ak jiitu leen yooyu yëpp kenn ku nekk mu am ci ab tolluwaay boo xam ne nii moom la cay doxe kon loolu lu jafe la lu jafe def la aalim moo koy def waaye tamit nga sukkandiku tamit ci ne maanaam li ñuy waxtaane dëgg-dëgg te mooy importance bi nga xamee ne tawxiid am na ko importance fa ngay sukkandikoo moom mooy mutasawwifiin yi nga jël ci misaal koo xam ne nii sëriñ bi moom la waxoon nañu nañ cay dellu te moom mooy al imaamul Ghazali waaye ñu bàyyee xel ne ne Abu Hamidul Ghazali la ndaxte Ghazali yi bari nañ bu ñu jàpp bu ñu bu ñu juumut ñett lañ woon ci liñ jàngoon am na Muhammadul Ghazali mi nekk Misra mu bees mi nga xamee ne daanaka ci muasir yi la bokk moom Abu Hamid al Ghazali am mag joo xam ne ni Ahmad la tudd moomit nekk boroom xam-xam boo xam ne dañ koy tudd moom waaye kii nga xamee ne booy dellu ci almunqis min ad-dalal nga xam ne daanaka moom moo jaaral fam jaar fépp dala ko leeral ci nekk koo xam ne nii baaxis mujj nekk koo xam ne nii kalaam yi la jaaxal ñi mu ànduloon ñoom ñëpp te loolu la koy ware moom mooy téere bi nga xamee ne doon nga ci tudd léegi ci al ihya mu diin mu am ci ñaar yépp waaye tamit nekk koo xam ne nii philosophe la te la koy wane moom mooy tahafatul falasifa nga xam ne moom it mbooleem koo xam ne nii philosophe la woon mu fexe ba li nga nekkoon lépp mu génnee ko ci ci yow waaye yooyu yépp it mu mujj nekk koo xam ne nii mutasawif la kon kooku day jaar ci mbooleem maratib yépp ba pare dog di nekk lii ci tàmbalikaayu cheikh Mouhamadul ko yàlla na ko sun boroom dëgëral bu baax a baax te kattanal ko ba lim bëgg a yeggale wala naal bi nga xam ne tàmbali na ko mu yeggale ko booy seetlu ci sira zatiyam bi gis nga nam doon waxe ci lim nekkee woon nekkoon ab jàngkat di gëstu di dem di dem di dem ba nekk koo xam ne nii dafa jeex takk ci sëriñ bi nga xam ne tàmbali ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi imaamul Ghazali daanaka noonu la nekkee woon moom it ci ab jaaru jaara nga xam ne dafa mujj nekk koo xam ne ni mutasawif la bu sóobu ci tasawuf fees ci dell moo tax sëriñ bi di ñu delloowaat ci moom ci xeet yu demee xeet yépp sëriñ bi nag waxtaan wi nekk waxtaan wu am solo boo xam ne nii xaqat dañuy nekk koo xam ne ku ñuy lottu lañu ci di la taaliqal ndaxte ci xam-xam la ko teg ci xam-xam dëgg la ko teg xam-xam bu wér a wér rawatina nag at tariqa muridiya namuzajan ci tasawuf ñoom niñ ko gisee wala ci tawxid ñoom niñ ko gisee nga xam ne sëriñ bi ci boppam bu fekkee ne ci jëf wala ci wax yépp nga xam ne da koy tënk ci kennal suñ borom bi tabaraka wa taala rekk yam ca loolu moom moo tax muy wax naan huwa alladi lam ara xayruhu wala araahu shay'un hada wa loolu li koy gën firndeel moom mooy masalan ci géej gi rek julli ci géej gi mooy gën a firndeel loolu géej ni mu mel waaye nga am tawxiid gu wér ne nit la koo xam ne ni wala ab jaam la boo xam ne ni jaamu suñu boroom la kon manit may jaamu sama boroom kon yaakaar naa ne bu ko sama boroom digalee ne ko defal war naa mën a def loolu rek moom lañ cee jàngate ci tawxiid gi nga xamee ne nekke na ko wala feeñe na foofe kon loolu ak yeneen i yeneen i biir mbir yu bare bari yoo xam ne nii sëriñ bi dañu ci soññu te nga leeral ko leeral bu wér a wér a wér liñ ci jàngatee rek mooy ñu gën a bàyyiwaat xel rek ci ne fi mu ne ñu bare bari man ci tàmbalikaay ba damaa defe woon ne sëriñ bi ci kalaam yi xóotu ci ilmul kalaam man damaa defe woon ne sëriñ bi xóotu ci woon ci tàmbalikaay ba waaye gis nga booy jàng ay mawaahibul quddus ak wala téere yooyu nga xam ne tudd nga fa wala masalan barakatu barakatu lasil wujudu ci xasida googu kon da ngay gis ne sëriñ bi maanaam daa yëmut fenn ci ci ci ci ci mbooleem xam-xam boo xam ne nii gis nga ko wala ñu ngi koy jàng di ko jàng ci ci biti rek boo ñëwee da ngay fekk mu fees ci dell dell dell dell dell kon ñu santaat yàlla bu baax baax ci loolu di ñaan sun borom tabaraka wa taala mu gën laa dëgëral bu baax baax baax te kàttanal la tënk rek ndax bëgguma guddal gis naa mu indi tomb boo xamante ne lu am solo la ci xaaj bi mu xaajee tawhid dafa am lu ñu tuddee tawhid kulliya ak lu ñu tuddee tawhid juz'iya mu mel ni kenn nag ci biir tawhid kulliya ci la tawhid juz'iya mu juddoo te bi mu juddoo ci biiram nag dafa am ay furu bi mu amee ay furu bi mu amaat ay ay ay ay salaasil yu ci jokk yoo xamante ne maam dem na ba indi ko ba ni ko siñ bi moom définir muy lu am solo loo xamante ne xam naa ku dégg wax ji dana xam ne ku gëstu la ku sonn ci thème bi la ndax benn bi mu indee tawhid kulli rek bu ci yomoon day mat sëkk waaye mu dugg ci biir indil ñu tawhid juz'iyya indil ñu ko jàngale ko baax ba pare rek indi définir lan mooy lu am solo la wax dëgg yàlla kon damay wax ne kon mbokk yi tawhid ci ci niñ ko déggee wax dëgg yàlla. mooy mooy mooy mooy mooy mooy lubbul amru bi nga xam ne nit ku nekk ci ñun war ngaa delluwaat sa bopp xool ci sa bopp yàlla wa fi anfusikum afala tubsirun day mel ni que ne loolu mooy tawhid wa fi anfusikum rek afala tubsirun te tey tey jàpp naa ne nit ñu indilee ci sëñ bi sëñ bi moom mosuta woote dara mosuta wane dara lu may borom bi subhanahu wa rek la su mos di wane te te yi nga xamante ne am na fi yëpp hadayta bi àqat yi bi aqdi boobu bu ñu ko seetloo moo doon tawxiid parce que bala ñoo am bala ñoo dem fenn fokk ñu indi maam aqira te aqira mooy mooy mooy tawxiid te loolu si moom moom bi muy tàmbali adaytu bi aqdi wa tasawuf fi nag doo di kon nekkate kon ci biir maanaam biir biir tawxiid ci la dem moom ba ballu fi li nga xamante ne mooy tasawuf tasawuf nag moom am ay bokkam yi mu àndal yépp nag kon lu am solo la wax dëgg yàlla alamin wasalaatu wasalaam ala sayidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabi axyaaril kiraam bokk yi noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar te di leen baalu àq di sant yàlla bu baax mi nga xam ne ci mbaaxam ak kattanam boole nañ ci jataay bii di sunu jataay di jul nuyoo bu tedd bu kawe di ko teg ci maam Fallu mii nga xam ne wala sëñ Saal mi nga xam ne moo fi nekk ak maam Fallu ak njaboot gi ñu tegal ñu nuyoo bu tedd boobu ci loxol sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy kilifa ëtt bii nga xam ne ci lañ jeexee la waxtu yu tedd yi ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax di nuyu it mbooloo mi nga xam ne walla njaboot gi nga xam ne ñi ngi taxaw ci taxawaay bi nga xam ne xaaj la ci liggéeyu njabootu ma Massamba te mooy xifsu turaatul islaamiya te muy seenub cër boo xam ne loolu rekk moo war a nekk seenub liggéey ñu war koo jiital lu ñu cay toftale doo ko caa toftale kon noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar te di leen jaajëfal te di ñaan yàlla sunu boroom mu doon leen kàttan ba lépp li ngeen bëgg a liggéeyal ma sàmba ak jawriñ jëm ji nga xam ne moom la dëhaloon fii muy Cheikh Modou Fati Xari ngeen àggale ko fu ngeen ko bëgg a àggale di toftal rek xëy na kàddu yoo xam ne kàddu yi euh, cant la ak soññee cant gi mooy ku def lu baax lu ne ku ne rawatina muy ka ko war a def def ko fa mu ko war a defe kooku des ko war a sant gërëm ko te di ko xamal na ko yaa ngi ca yoon wa koo xam ne it la nga nekk ku la ca fekk ku ne dafay sawar ànd ca ak yow mbaa mu soññee ko ànd ca ak yow mbaa nga dolli ko pas séef mu gën a taxawaat kon loolu doy na sëkk rek seede ci jëf ji ak doxeen wi te di ci sant yàlla bu baax a baax a baax kon bokk yi liggéey bi xob boo xam ne lu ñu ci liggéey rek mooy liggéeyal nañ ko lislaam waaye liggéeyal nañ ko Sëriñ Tuuba ak njabootam gi nga xam ne ñoom la dëël fii te ku mës a dëël ci barab rek daf la fa dëël ngir nga dundal bëgg-bëggam boobu yi nga xam ne moom la mbokk mi doon waxtaane léegi muy bëgg-bëgg boo xam ne lum sonn rek moo tax mu jëmmi yàlla kennal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam coono bu mu mas a am ci àdduna looloo tax kum defar ku ne fu mu la dël lool la la fa dële kon ku nekk ca loola bokk ci njaboot googa di ko dundale loola ak cant yàlla la ah di ci am ah, mbégte lool di ko sagoo lool di ko tiitroo lool yàlla na ko sunu borom gën a jëme kanam sadd lisaani nawi janaani safi aman wasa dibra ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp di nuyu mbokk taalibe yi di ci jiital suñ kilifa gi di kilifa jataayam di sëñ Seex Mbàkke mu sañ sëñ Abdu Baaxe ak sëñ Saaliu Mbàkke imaam ak mbokk yi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di sant te di indi kàddu cant yoo xam ne mi ngi jóge ci eh, tuuru waa académie bi yi nga xam ne ñoo doon taxawal li ci weeru koor yëpp ki njiital sëñ Xaadim Mbàkke mi nga xam ne mooy njiit li muy kàddu yoo xamante ni dañuy sant ñëpp di sant mbokk yi ak ñu àndal ci académie bi ñëpp ci wàllu thème bi liñ ko doon taxawaleek di programme ak ñi ci jàpp ak ak ni ñu doxalee ndog yi ñëpp ak comité organisation bi yore woon ndog yëpp ñu ngi leen di sant di sant ñëpp di sant yéen waa presse bi surtout rawatina waa Touba Info yéen ñi xam boobu tey yéen a ànd ak ñun jataay bi mos leen manqué benn yoon ak mbooleem média bi ñëpp. Daaru Karim TV ñëpp nga xam ne mi ngi ci biir ak média bi dañuy bañ a lim di bañ a jum moo tax ñi ngi leen xamee ne waa académie bi sant nañ ñëpp ndax li taxoon ñu jublu ci lii ba di ko def ci koor gi bëgg a tasaare xam-xam ak te xam-xam dëkk bi nga xam ne moo nekk muy Daaru Karim bi ko sëñ Masamba di sanc ci ndigal sëñ Tuubaa bëggoon a jàngale ak yar rek moo taxoon mu def ko loolu rek lañ bëgg a nekk ñoom bay ci seen waar ànd ko seen kilifa loolu rek moo waraloon lii ñu ko doon def te defoon nañ ci ñeenti thèmes yoo xamante ni ñin ko joxoon ñi ñu ko doon defal def nañ ko nu kawe suñ ñor noo xam ne yaakaar nañ na sax duñ ci am lu toll noonu ñaan yàlla suñu borom mu dégg noonu liñ ci wax lépp tan jariñoo ko ñi ngi ñaan yàlla suñu borom mooy ñu fekk waa déwén ak jàmm nim sant nim ñu mayee ñu sant nañ ko tamit ci li nga xam moom lañ jàll am am nañ luñ kawe suñ jor defe ko noo xamante ne defe nañ ko raw nañ ko bëggee woon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf bismil ilaahi yan bila manaahi wala intihaa'i bismil ilaahi yan mulhaa'i bila manaahi wala intihaa'i bismil ilaahi yan mulhaa'i بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضرا